alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala amma baad bokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ñu ragal yàlla ci def ay ndigalam te bàyyi ay tereem mbokki jullit yi bokk na ci yi sunu borom tabaraka wa taala jagoo nga xam ne bokkliwu ko ak kenn mooy xam-xamub kumpa loolu alquran wone na ko sunna wone na ko sunu borom tabaraka wa taala nee na yow yonent bi waxal nit ñi qul na leen wax ne laa yaalamu man fi samawati wal ardi alxayba illa allah ñi nekk ci asamaan walla ñu nekk ci suuf amu ci kenn ku xam kumpa kudul yàlla wa ma yashcuruuna ayaana yubcathuun amul ci ñoom sax kenn koo xam ne bu faatoo xam na kañ lay dekki kon kooku xamut kañ la yomal xiyaam di taxaw te kooku benn ci kumpa yi la borom bi tabaraka wa taala nee na wa indahu mafatixul gayb nee na caabi yi kumpa moom sunu borom tabaraka wa taala moo ko yore moo ko dencal boppam laa yaalamuha illa hu nee na caabi yooyu moom dong moo ko xam loolu balaaxa bu xóot la ci waxiinu alquran ndax su fekkee caabi ya tëj kumpa ci boppam kenn xamu ko kon kumpa ci boppam moo gën a sori loola sunu boroom rekk moo xam caabi ya kon jëmmi kumpa moom kenn waxalewu ko laa yaalamuha illa hu nee moo xam li ne ci jéeri ji moo xam li nekk ci géej gi te moom la xam-xamam yaatu ba àgg ci amul wenn xobu garab woowoo wuy dagge ca garab ga tàbbi ca suuf lu dul sunu borom tabaraka wa taala yëg na loolee xam na ko amul aw fepp bu nekk ci kaw asamaan wala mu nekk ci kaw suuf nekk ci biiru lëndam doon lu wow wala mu doon lu tooy lu dul sunu borom tabaraka wa taala xam-xamam peeg na loolu mu bind ko ci itam ab téere boo xam ne téere bu leer naññ la yonente bi sallallahu alayhi wa mu firi loolu yi nga xam ne mooy mafatixul gayb muy caabi yi nga xam ne mooy caabi kumpa mu firee ko aaya bi sunu borom tabaraka wa taala tudde juróom yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dane juróom yii day ñooy caabi kumpa bi ci jëkk mooy ilmu saa xam-xamub kañ la adduna di tukki ñaareel ba wa yunazilu lxays xam-xamub kañ la taw buy xet li nit ñi di wàcc suñu borom a ko xam ña ca des dañuy nattale rek manees naa jëfandikoo jumtuwaay nag nattale ba jàpp ne noonu la waaye mën ngaa dem ba jàpp ne noonu la niir woo wàññi ko jëm feneen fu bokkul ak la nga nattale woon ndax ngelaw la rek moo koy doxal te ngelaw la ci loxol suñu borom la nekk wa yaalamu ma arxaam moo xam itam la nekk ci biir kejub jigéen ja maanaam ka ëmb palaasu ëmbukaay ba la fa nekk suñu borom a ko xam léeg-léeg ñi ñàkk kersa dañ naan loolu kat manees na koo xam léegi ndax mën ngaa jëfandikoo échographie daal di xam ndaw si góor la ëmb wala jigéen waaye fekk na waxiinu alquran gën naa xóot li ngay wax ndax wa yaalamu maa baatub maa dafa bokk ci baat yi nga xam ne dafay labal lépp day généraliser lobsul umum la moo xam ba peeg li nekk ci biir ba loola nu mu mbiram demee kon xam góor ak jigéen la ca la ca gën a suufe ca la bokk waaye xam koo kii dana judd wala du judd bu juddoo day faatu wala day dund bu juddoo day am wërsëg wala day ñàkk day baax wala day bon nii lay mel wala nee lay mel loolu xam-xam lott na ca loolu lépp na xam-xam sunu borom tabaraka wa làmboo na ko mu ne wa ma tadiri nafsun maada taksibu gadan amul benn bakkanu doomu aadama bu yàlla bind boo xam ne xam na lan lay war a def suba li ngay xëyee suba daal am na loo yéene waaye xamoo da nga ko defam ndéet ndax xamoo dana la fekk fekkam ndéet suñu borom tabaraka wa sax foofu daf koo yaatal rek waaye juróomi minute wala lu ko gën a néew yii ñëw ci kanam sax xamoo luy xew wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut kenn xamul itam benn bakkan xamut itam ci san suuf lay faatoo yooyu juróom nit lott na ci bokk na ci xisas yi ñëw ci banu israil xisas yi bani nga xam ne duñ ko weddi waaye duñ ko defee nag mu nekk dalil waaye léeg-léeg nu wéttalikoo ko ne suleymaan alayhi salaam xam nga ne dafa ñaanoon boroomam nguur goo xam ne du yell ci keneen ñi may ko nag lu yaatoo yaato yaatu am benn bis mu toog ba mu yàgg mu gis jëmm joo xam ne dañ koo lalal ab tàppi mu yéeg ca kaw di naaw di dem mu yéemu ci mbiram lool mu ne ah moom mbaa du nguur giñ ko mayoon daa am keneen kuñ ko may mu laaj malaaka moom waxal te sunu borom tabaraka wa wax ak moom mu ne ko nee ko kookii ca soowu la doon dund te daa war a faatoo ca penku te waxtu wi mu war a faatu jege na te lenn lu ne ci suuf tey lu mu mën a war wala mu mën a dox ba àgg fa mu a faatoo loolu amut lu dul ci lu mel ni lii ko sunu borom tabaraka wa jox kon loola moo waral mu yéeg ca tappi boobee tappi ba di naaw moom jëm moom penku ngir mu war a àgg fam war a faatoo ndax wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut benn bakkan xamut kan lay faatoo moo tax Aïcha radiallahu taala anha daf daan wax ne képp ku la ne xam naa luy xew ëllëg nee ko waxoo dëgg ak kum mën a doon nag nee na daal di ne wa ma tadri nafsun bi ay ardin ndax loolu la suñu borom wax mbokki jullit yi dana jaadu ñu xam kumpa bi kenn mënta xam sunu borom jagoo ko boobu mooy ban bu ñu waxee alxayb muy kumpa mooy lu nëbbu loolu yi nëbbu nag ñaari xaaj la am na loo xam ne daa nëbbu ñépp maanaam benn mbindeef xamu ko muy ña ca asamaan wala ña ca suuf mënuñu koo xam lu dul gannaaw bu amee rek ci lañ koy mën a xam loola sunu borom tabaraka wa rek moo ko jagoo waaye keneen bokku ci dafa am loo xam ne nag dafa nëbbu ñenn ñi ñeneen ñi ci des mu feeñu leen ñu man koo xam kooku doonut loo xam ne suñu borom tabaraka wa moo ko jagoo kenn ku nekk borom bi mën na laa xamal loo xam ne xam nga ko ci yëf yi gën a ñàkk solo sax yi gën a woyof li nekk ci sa poche sax yaw yaa xam lu mu doon waaye ki nga dendal xamut lu mu doon te fekk yow xam nga ko loolu ci biir rey bu lay dugg waaye nag boobu kumpa doonul kumpa koo xam ne dañ naan sunu boroom moo ko jagoo waaye dafa doon xam-xam boo xam ne da koo mosal nit kon ñaari xaaj yooyu ñoo am loo xam ne dafa nëbbu waaye daa nëbbu ñenn ñi feeñu ñi ci des loola nit ki mën naa góorgóorlu ba xam lu mu xamul woon kuy jàng sax ci loolu lay xëy ci lay gont loo xam ne nag mbindeef mënu koo xam sunu borom tabaraka wa moo ko jagoo kooku mooy gaybu bi ñuy wax ne doomu aadama du ko xam mukk te ju yooyu ñu tudd léegi doon seeni caabi amma jabar yeeg xamkat yeeg seetkat yeeg tur yu ñu leen mën a jox sëriñ lasraar ak yooyu yi ñuy joxe mu doon ay xabaar yoo xam ne léeg-léeg ñu wax ko mu dëppoo ak dëgg loolu taxul ñi xam dara ci loo xam ne mooy xëy bu wala kumpa gi ñuy wax moo tax Aïcha radiallahu taala anha nee na dafa am nit ñi ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj njabarkat yii maanaam seetkat yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ñooñu day duñ dara maanaam tekkiwuñ dara ñu ne ko ah yow yonente bi yàlla bi ñoom kat léeg-léeg ñuy wax dara loola ñëw doon dëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen kalima boobee muy baat boobee ñuy wax muy doon dëgg jinne moo koy dégg mokkal malaayika yi di ko joxe jinne ji moo koy yore di ko fooyee yor ko di jenji mel na ganaar goo xam ne day jenji maanaam di kokko yi nga xam ne ku ko dégg li muy wax da nga xam ne am na lu muy wax loo xam ne dana dese leer ci sa nopp su ko jabar ji ba déggee nag ci jinne ji nee na loola lay fëkk fekk am na ay accord ci contrat yu dox digganteem a jinne ba jinne ji jox ko loola nee na suñ xamee benn baat boo xam ne dëgg la danañ ci boole téeméeri baat yoo xam ne ay fen la bis boo xamee ne dem na ci jabar wala xamkat mu wax ko benn baat mu doon dëgg day fàtte mboolem fen yam doon wax fu mu jaaral ci ne kooku lu mu la wax rek dëgg lay doon kon ñooñu loola moo tasaare seen mbir sunu borom tabaraka wa leeral na xamle na ne du jinne du malaaka du yonent du nit ku baax koo xam ne suñu borom tabaraka wa daf koo jox kumpa nga xam ne day wax ne li nëbbu lépp xam na ko wala lu mu bëgg a xam lu nekk rek day jékki-jékki xam ko loola amul moo tax suñu borom tabaraka wa taala ku xam dara ci liy ñëw te ak seegut la xamal la te su la koy ci yonent lay jaar moo tax yii ngeen xam yépp xam ne yowmal xiyaama ngi ñëw ci kanam loolu rëyb la loo xam ne ab yonent moo nu ko xabaar nu gëm ko lii munu gëm loo ne ku jaamu yàlla da ngay amub yool ku mooy yàlla dañ lay mbugal loolu lépp ay xabaar la yoo xam ne lu nëbbu woon la waaye bi nu ko sunu borom tabaraka wa taala mosalee te jaarib ci ab yonent loolu moo tax nu xam ko waaye nag fi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax da taxaw ak moom mooy fi sunu borom tabaraka wa taala waxe ne inna allaha indahu ilmu saa maanaam xam-xamub bu ñu waxee xam-xamub saa mooy xam-xamub yowmal qiyaama mooy xam-xamub li ñuy tudde àdduna ju tukki xam ko nag mooy xam kañ la muy ab bu mag kañ la yowmal qiyaama di taxaw suñu borom daf koo waxee waxin wu xóot inna a indahu ilmu saa bi mu jiitalee indahu door a indi ilmu saa day wone ne moom dong moo xam kañ la yowmal qiyaam di ñëw te loolu ay alxuraan yi dañoo ñëw bari lool feddli ko bi ci gën a fés mooy bi sunu borom tabaraka wa taala wax ci suratul araaf mu ne yasalunaka an saa mu ne yonente bi yow kat da nga taw ba jëmmi jamono ay nit ñëw di la laaj kañ la yowmal xiyaam di taxaw ay yàlla mursaaha maanaam kañ lay taxaw su boobaa tontul qul na leen wax ne innama ilmuha inda rabbi xam-xamu kañ lay taxaw kooka ma nga fa saa boroom laa yujalliha li waqtiha illa hu ki ko yore su waxtu taxaw saa jotee mu koy taxawal kooka sunu borom tabaraka wa taala képp la kenn fekku ko ca loola moo tax mu dëkk ne saqulat fi samawaati wal ard diis na ci li yàlla bind ci asamaan ak suuf xam-xam di wàcc ci seen bopp xaju ci saqulat nga jëfandikoo te it ci mandarga saa lii mu ci teg muy laa taatikum illa baxta su fekkoon ne nit ñi mën nañoo këlkin wala ñu am ay xam-xam yoo xam ne mën nañ koo tër ba xam kañ la yowmal xiyaam di taxaw kon alxuraan day dàqu te alxuraan du dàqu borom bi nee na laa tatikum illa baxta mbetteel lay dikke buy ñëw mbetteel buy dikk kenn du ko préparé kenn du ko yëg dafay doon loo xam ne day jékki-jékki rek am xanaa màndarga yi jiitu ku mu fa fekk nga xam ne lii kat kon soreetu borom bi tabaraka wa taala nee na moom rek moo ko jago waaye lu bari ci nit ñi nee seeni xam-xam dafa gàtt eh? ci xadisu jibril bu gudd boobu yi nga xam ne jibril mooy malaaka mi gën a tedd ci ndaw yi sunu borom tabaraka wa taala di yónni tañ doon malaaka mu ñëw ci ndaw li nga xam ne moo gën a tedd ci ku sunu borom tabaraka wa taala masa yónni ci nit maanaam jibril ñëw ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ay laaj mu bokk ca laaj yam ko laaj axbir ni ani saa wax ma kañ la yowmal qiyaam di taxaw la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam tontu mool mooy mal masulu anha bi alama min asaail ki koy laaj ak kiñ koy laaj ñoo ci yem maanaam tanewuma la ci kon kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom la boroomam di waxal jibril mi nga xam ne moom la ñuy jaarale ci moom wax ji muy ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñooñu nga xam ne mën ngaa dogu wax ne ñooy ñi ëpp xam-xam ci ñu sunu borom tabaraka wa taala mas a bind kii mooy ki ëpp xam-xam ci malaayika yi kii mooy ki ëpp xam-xam ci doomi aadama yi yonent bi ne ki ngay ki nga koy laaj ak ak yow ñoo yéen a ci bokk yam tanewuma la ci xawma ko xamoo ko kon bokki jullit yi ñu xam ne doomu aadama dafa bari solo dafa réere boroomam dafa réere kattanu boroomam ak dara darajaam su xamoon kan mooy sunu borom tabaraka wa taala ak fan la toll ak fan la kàttanam toll ak xam-xamam ak darajaam kon am na yoo xam ne du ci jéem a dugg waaye ñu xam ne jéem a xam kañ la yomal xiyaam di taxaw du e, bisub tey rek la ko doomu aadama yi masa tàmbali bi gëstu ci ay jamono ca gannaaw la siiwoon ci téere yu bari ba ay boroomi xam-xam di ko wax ba cay teg lu nuru ay xadis sax moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du am ci xabroom bi du fa am junni at maanaam mille ans du ko am ci ci ab xabroom loolu imaam bu ñuy wax Jalaaluddin Suyuti bind na ab téere pour weddi ko te Jalaaluddin Suyuti mi ngi faatu ci atum 911 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lettre boobu mi ngi ko tudde risalatul kashf an mujawazati hadihi al ummati al maanaam ab téere ngi boo xam ne day leeral ne xeetu yonente bi danañ weesu junniy at loolu ko taxoon a jóg ma nga fay wax ne dégg naa lu bare bari ci làmmiñu doomu aadama yi ñi naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du am junniy at ci xabroom bi ba indi sax ab xadis boo xam ne day tegtale loolu mu ne man li may tontu foofu mooy ñi xam ne xadis boobu baatil la maanaam xadis ba ay neen la amul cosaan ci hadiisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na biñ ma laajee loolu bi ma ubbee loolu ma ne leen xadis bi wérut am waa ji ñëw fi man nee na ci atum 898 nee na yor aw këyit woo xam ne na ca nekk nee na mu ma lii kat ab fatwa boo xam ne diw sàngam moo ko ubbee nee diw sàngam moom i bokk ci boroom xam-xam yu mag ya nee na bi ma xoolee kayit Kaydo ba gis ko mu cay saxal ne moom gëm na ne xadis boobu yi dëgg la maanaam yonente bi doo am junni at ci xabroom bi mu gëm ne fu junni at mi nga xam ne mooy e, maanaam téeméeri at yi nga xam ne ñoo mujj maanaam ci la junni at yi di mate mu cay wax ca kayit wa ne ci la almahdi di génn dajjaal ci lay génn ci la isa alayhi salaam di wàcc xeet yi mandar mandarga yépp foofu la ñuy ñëwee nee na bi ma liiree kayit ba àggal wóor na ma ne boroom xam-xam boobee ñu ko askane euh, waxu ko waaye nee na euh, xëy na teggiin ak rusa continuer di werante ci yu mel noonu moo tax ma delloo ko aw kayitam rek ne cell waaye suyoot yi ca mujj ga mu ne li nga xam ne daal moom la dalil yi wone ak tegtal yi tegtal yooyu xam naa ne doon xonaan bu sunna moo di ne xeet wi dëgg la yonent bi dana am junniy at ci bàmmeel waaye nag bu ko amee moom juróomi téeméeri at du ca tegu mukk moom maanaam mun munu koo mat loolu la loolu la suyoot yi wax kon tontu na xadis boobee ba ne ay neen la waaye lim ko tontoo it yeneen neen la ndax ma su ta wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du am junni ak juróomi téeméeri at daanaka moo koy wax ne du am junni at loolu lépp da yóbbe nit ki mu fàtte ne day wax ci tomb boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala képp moo ca xam dara yonent ba xamu ca dara jibril xamu ca dara kon yow it xamoo ca dara loolu rek moo la cay noppal kon bépp borom xam-xam ak lu mu xóot-xóot ci xam-xam lu mu ragal yàlla ragal yàlla lu mu bëgg-bëgg bëgg lu baax su duggee ci lu mu xamut da koy andil ay njaaxum da koy dugal ci ay neen te lii léeg-léeg mu dal boroomi xam-xam tontu ak neen ba delloo ko ba àggal ba noppi wëlbati ko soxal ca wet ga yeneen neen yooyu itam day aaje tontu bu ëllëgee kenn xamul ndax junni at yi juróomi téeméer dana ca tegu wala du ca tegu ndax mbir la moo xam ne kenn xamut kañ kenn ku nekk dégg na li xew ci fan yi euh, média yeeg doomu aadama yeeg werantekat yi kenn ku nekk mi ngi wax ñi ne bisub tey bii nu nekk moom la ay jëmm fixé woon ne àdduna su fi accès fi lay yem muy le 21 12 2012 ñu ne foofu la yëf ya yem ay at ci gannaaw occidentaux yi génne nañ benn film boo xam ne da doon wax ne àdduna ci 2012 lay yem film bu doy waar boo xam ne daanaka boo ko dee seetaan doo mën a taxaw da ngay ba mu jeex rek ndax doy waar ak yi ca nekk film boobu la ko taxoo a jóg mooy exploiter ñi nga xam ne amuñuy xel li nga wax ne moom lañ ci jaay ci ay quantité yoo xam ne indil na leen xaalis kenn xamul nu mu toll te ñooñu xaalis boobu moo taxoon ñu defal film boobu waaye li gën a metti ci xew-xew yu mel nii su xewee ba tax nit ki di ci taxaw di wax moo di doomu aadama yi fi fi réer toll ci ñoom te ay jullit nekkaat ci seen biir loolu moo metti jullit yi daanaka lépp loo xam ne lu xew lu nekk ci ay njaaxum ñàkk xam seen diine dana tax mu yóbbaale leen benn chaîne télévision nee na 15 pour cent ci ñi nekk ci kaw suuf tey gëm nañ xabaar boobu 15 pour cent maanaam téeméer boo jël ba ne fukki nit ak juróom ci recensement boobu bu ñu def gis nañ ñi ñooñu gëm nañ loolu ñu gis ne 5 pour cent ci 15 pour ay jullit lañ maanaam téeméer boo jël juróom ci ay jullit gëm nañ ne tey jii àdduna di tukki loolu ak réer la goo xam ne jéggi na dayo nun nag suñ société yi nu nekk ci Afrique ak fii ci Sénégal dafa mel ne ay neen ak i caaxaan ak lu teguwul dara ni muy tasaaroo ak ni ko nit ñi di gëmeeg ni ñu ciy jafandoo bu dëgg dikkee day mel ne duñ mel duñ ci mel lu mel noonu xam ngeen ne bëkk démb ci lu yàggul rek ay fan am na ab jabar boo xam ne ku tekkiwul dara koo xam ne sax amaana ku wérut la sax di wax ne am na avion bu war a ñëw di daan ci kaw université Dakar loolu ban réaction li ci nit ñi def mbooloo yu bare bari di daw di génn di dem ay ba ci ay étudiants yoo xam ne ñuy jàng lañ di doon boole ba ci ay jullit yoo xam ne ay jullit lañ ñuy génn di fab seeni i bi dem ne avion bi day daanu kuy gëm lu mel noonu te te nekk ci biir diiney lislaam nan ngay xoole waxu yorant bi sallallahu alayhi wa sallam ku dikkee ab xamkat ab jabar gëm dara dara ci lim lay wax nee na na nga beesalaat sa ngëm ndax weddi nga li muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi woon démb benn chaîne boo xam ne bu arab la journaliste bi doon def xabaaram yu mujj wala émission bu mujj bi mu jeexalee te jullit la daf ne kon mbokk yi kat sama émission bi jeex na li ñu wax bu fekkee ne am na kon maa ngi leen di tàggu ba faw su fekkee nag amut kon danañ dajewaat bis sàngam ba dellu siwaat def siwaat benn émission xoolal loolu ci jullit mbokki jullit yi xiyaamu saa muy àdduna ju tukki dafa am ay màndarga yoo xam ne ki nga xam ne lu mu wax dëgg la moo ko wax mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn ki ñuy wax almasiixu dajjal mooy jëkk a feeñ kooku ak feeñam fitna la goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musta julli te mus lu wut ci moom kooku te gisaguñ ko melokaan yi ñu jox ak mandarga yi gisaguñ jooju jëmm ñaareel ba ya jooja wa ma jooja muy mbooloo moo xam ne bu ñu wàccee ci kaw suuf lu doy doy waar la ñu doon loo xam ne fenn fu nekk la ñuy ball jóge fa boole koog ay jëf yu doy waar yu tumuranke yoo xam ne doy nañu waar loola teguguñ ci bët ba ca des daaba yoo xam ne dafay génn di wax ak nit ña di leen séparer ña doon ay jullit dëgg-dëgg mu ne ñii ay jullit lañ dëgg-dëgg ña nga xam ne ci caaxaan lañ nekk mu ne ñii ay yéefar lañ maanaam naafeq yi jaxasoo woon ci biir nit ñi te xamuñu leen daaba jooju bu ñëwee da leen di leeral ni kee naafeq la kee naafeq la loolu tegaguñ ci bët almahdi nga xam ne mooy ki bokk ci sëti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi dana dellusiwaat wax na ci moom mandarga yu bëree bëri ak lim fi dund ak bu ñëwee lim fi def ak nu mu tudd ak nu bàyyam tudd bàyyiwul dara àgg na ci ba ne Muhammad lay tudd bàyyam tudd Abdullahi maanaam day yor turu yonente bi bàyyam yor turu bàyyam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm jooju kenn gisagu ko kon ñëwagul bokk na ci yi muy def te bokk na ci mandarga yooyu wàccu isa alayhi salaam muy yonentub yàlla boobee nga xam ne moom la wàcce woon ci moom liñ jiil ba wér kooku bu delsee moom mahdi moomu ñooy àndandoo rey masiixu dajjaal loolu dara xewagu ci bokk na ci màndarga yooyu mooy danañ xëy bis doomu aadama yam fekk ñu xool jant bi fenke fële mu daan soo bu fa fenkee dox jëm fi nga xam ne foofu la daan fenke loolu kenn gisagu bokk na ci màndarga yooyu moo di ne qiyaamu saa buy am kenn ku gëm yàlla kuy wax laa ilaha illallah dutu nekk ci kaw suuf te nag ba ci sunu jamono tey jii ànd ak lu naafeq bari bari bari lu càggante bari bari bari am na nit ñoo xam ne mën nam leen a seedeel ne ay jullit lañ ba tey ñu ngi wax laa ilaha illallah kon loola bokk na ci pas-pasu jullit boo xam ne ni mu gëme yàlla gëme ne yonent bi gëme ne alquran noon la war a gëme ne saamam taxawagut fii nu toll nii sunu borom tabaraka wa taala nag kañ lay taxaw mbokki jullit yi noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu delloo nu ci suñu diine ak delloo goo xam ne gu rafet la xamal na ci suñu diine li nu réere te buñ ko xamee lu jëfe ko te jàpp ca góor góorlu ca sellal ko lépp lu nuy def wala nu di ko wax suñu borom tabaraka wa taala tax nu di ko def wala nu di ko wax sax ca loola ba keneen di dajeeg suñu borom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallam ala wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain